yi ñu dëgmal mënuñu cee bañ a wax euh, muy élection yi ñu jub nga xam ne presque mois de décembre bi doo nga ci des ñuy waat suñu bopp di fàttaliwaat suñu bopp nag ndaxte ku ne xam na ni noo nekkul ne dañoo fàtte sax mais euh, politique moom fii Sénégal rawatina suñ département bi ku ne xam na ne jigéen ñee ko ŋànk jigéen ji bu mobiliser jotee ñooy mobiliser su voté jotee kenn mënu leen ci ñooy génne mbooloo mi ñooy convoyé mbooloo mi ñoo leen di gunge ba ci bureau yi wan leen nu ñuy voté kon dañoo am une part non négligeable ci coli ci kii li processus électoral bi ba tax na nag ñuy fàttaliwaat suñu bopp rek nekkul ne dañoo fàtte mais dañoo bëgg cër bi ñu moom ñu jox ñu ko nag ndax élection moom wax dëgg yàlla jigéen ak jeune moo tax ñu koy te ñun desuñu ci ginnaaw benn yoon loxo bañ ko tàllaloon barki démb ak démb ba léegi moom lañ ko tàllal di xam ne ñoo ngi ci ginnaawam ki mu joxoon tamit muy Amadou Ba moom ñoo ngi ci ginnaaw fas yéene koo jàppale fas yéene koo far incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee ah, di tàllal loxo tamit ministre de xam nañ ne am na lum def ci departement bi lu négligeable ñu koy saluer mais ñu koy ñaan tamit mu dolli te mu recevoir ñu ndax bëgg nañoo toog ak moom. tey nag sunu toogaay bii day toogaayu taxaw wax sunu kilifa muy président Macky Sall ndax daf noo jël joxoon ñu Amadou Ba te ñii fi toog ñëpp kanam yii fi toog yëpp muy kanam yi nga xam ne lu président jóg rek ñoo nga ca taxaw ànd ak moom liggéey ko ba liggéey bu am solo kon nag ñu jëm ci deux mille vingt quatre président joxoon ñu Amadou Ba ñu fa yéene ànd ak moom liggéey ñun ñu bëgg président xool kanam yi fi toog ak waa Touba yi fi toog di ay jigéen waxtu wu ne ñu di ko liggéeyal te liggéey bi ñu koy liggéeyal maanaam jigéen ñii ñi fi toog kenn gisu seen bopp ci li ñuy def fii ci dépa commune Touba commune Touba. waxuñu fàtte danoo fàtte kon nan nu gestu nun waa commune Touba jàppale nu jàppale jigéen ñi surtout jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñii kat ñooy wote ji. ñooy dem ci urne yi ñoo yor mbooloo yi nga xam ne ñooy dem ci oto ci ci urne yi wote ji kon nag président Macky Sall du Ba waa soon yaa ngi nii yaa ngi dégg ak responsable yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ndax ñun ñii dañoo toog rek di responsable yi soon waa ñi ne ci sunu ginnaaw ñoo ñu gën a jàmbaare kon nag nan gestu jigéeni Touba commune Touba la ñuy wax ndax ñun noo am problème tey toog fii di wax ñun waa commune Touba kon président Macky Sall na nga jàppale waa commune Touba Amadou Ba nag nu recevoir ndax loolu lañ soxla. ndax commune Touba 80 pour cent la boo ko doon wàññi tey bu fekkoon ne commune Touba dong moo gagné monde rural bi gañëwul Mbàkke gañëw dañuy gagné. kon nag président Macky Sall na xam ne jigéenu commune Touba noo taxaw nanu soutenir. nanu recevoir Amadou Ba recevoir nu ñu dox nu moyen de campagne ñu dugg campagne fas yéene gañe commune Touba danoo bëgg a yokk cere dolli ñeex ndax defet bi dañ cee doyal ñun defetu commune Touba la nu doyal sëkk loolu bambara yi naan abana pew foofu lañ toll jeexal nañ ci takk nanu jox ay moyen jox ñu ay oto ñu dugg ci terrain bi liggéey may may Amadou Ba ndam fait en, en, ce moment, on, on, on appelle le, le, ministre de la Femme, Mme Fatou Dianigui, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, ah, pour qu'ils nous reçoivent et nous parviennent à amener les financements et les formations pour l'autonomisation des femmes ici à Touba, pour qu'on puisse aller dans nos bases, sensibiliser les personnes, aller dans les Santian, sensibiliser tout le monde pour avoir une victoire éclatante au soir du février. Vous êtes les donnes Bien sûr. Mm-hmm. Les, ce sont les femmes qui, mobilisent dans les cars. Ce sont les femmes qui sont dans le parrainage. Ils sont partout, nous sommes majoritaires. C'est la réalité. D'autant plus que le département de Mbaké et le premier département de Sénégal le plus peuplé, selon les derniers son, euh, Donc, le président doit tenir en compte l'électorat qui, qui, existe dans, la commune de Touba. Parce que si on gagne la commune de Touba, on gagne le département. Ça, c'est inévitable. C'est irréfutable. Il faut que le président prenne ses responsabilités et que le, le candidat Amadouba suive les pas du président et apporte son, une aide pertinente aux femmes pour qu'ils puissent gagner. Parce que nous sommes fidèles, nous sommes là depuis toujours, on n'a pas bougé, on n'a pas transimé. Donc, il faut qu'il appuie les femmes très rapidement pour qu'on puisse aller sur le terrain. Donc, les 11 zones et celui des partis alliés, qui est représenté par Sohnamam Awadjang. Ici, elle n'est pas encore présente parce qu'elle avait un deuil. C'est la cause, mais ses, ses responsables sont ici. Donc, il faut qu'on change la donne. Nous sommes fatigués de la défaite. Chaque ah. élection qu'on est des défaites. Donc, il faut essayer les femmes. Les femmes sont là, elles sont plus nombreuses, elles sont plus déterminées. Elles ont peur de la défaite. Elles s'investissent corps et âme pour une victoire. Donc, il faut les aider, il faut les appuyer financièrement avec des formations, etc. Mm-hmm. Donc, nous, nous faisons appel au président et tout son gouvernement pour qu'il prenne au sérieux le, la commune de Touba. Mm-hmm. C'est un cas très critique. Donc, les femmes sont là, nous sommes prêts. On attend le, le président et son gouvernement pour travailler et apporter, remporter la victoire au soir du 24 février. Ah, wow.